nit ku nekk ci àdduna am nga réputation moo xam réputation bu baax la wala sax mu réputation bu safaan looloo waral seen rajo télévision Assalaamy TV indil leen seen émission réputation mbokk mi yow mi nga xam ni da nekk ci dëkk bi am fi réputation bu baax war na ci yow nga ñëw toog fii ndax royukaay nga ndax exemple nga nga wax nit ñi sa réputation mbokk mi mi nga xam ne da ngaa nekk ci dëkk bi am fi réputation bu safaanu léeg-léeg nit dina am réputation bu safaanu ndakate wuute na lool ak la muy dund kon yow it war na ci yow nga daal di ñëw toog fii ni waxtaani ko ñun war na ci yow nga daal di ñëw toog fii leeral ñu mbokk yi looloo waral seen rajo télévision Assalaamy TV indil leen seen émission réputation ñu koy amal tous les quinze jours di fukki fan ak juróom yu nekk ci weer bi fii ci Assalaamy TV jërë ngeen jëf